ci texte yi nga xam ne ñoo ci badar ci lañ xam ne yonente bi sallallahu alayhi bokkoon na ci xeex bi waaye nag buñ jàpp mukk ne buñ jàpp mukk ne rusul yonent bi alayhi salaatu wasalaam bul foog ne li ëpp ci waxtoom daf koo jeexal ci biir mbaar moomu wala daf koo jeexal ci ñaan comme ñu ko ñenn ci kutubu siira yi di waxee waaye jàppal ne yonent bi salaatu wasalaam def na ci xeex bi ay effort yu mag mag yoo xam ne ay effort personnel la al imam ahmad soloo na boo xam ne mi ngi bàyyi ko ci ali mu ne laqad raaytuna fi yowmi badrin wa nahnu naluudu bi rasulillah wa huwa aqrabuna min al wa kaana min ashaddi nnaasi yowma idin mu ne boonu gisoon badar booba noo ngi doon làqu ci yonente mu gën ñoo jege noon bi kon da doon xeex bal moonu gënoon a tar sax aw ay keroog ci beneen barab ci même sanad bi mu ne lamma xadara al bas yowma badrin ittaqaynaa bi rasulillah wa kaana min ashaddi nnaas maa kaana aw lam yakun ahadun aqrabu ila al mushrikina minhu mu ne xeex bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa bu tàngee ba tàng ci moom lañ doon ñëw di ci làqut mu gënoon ñoo tar gënoon ñoo jege noon bi imaam muslim soloo na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ay saxaabaam bisu badar ne laa yataqaddama ahadun minkum ila shay'in hatta akuna ana duna kenn avancé ba gën maa jege bu ma kenn gën a jege maanaam na ma na ma na ma ñëpp ginnaaw kon yonent bi ibnu kasir nee na xeex na moom ci boppam qitaalan shadidan bi badanihi ci yaramam noonu abu bakrin waaye noonu itam lañ nekke woon ca biir mbaar moomee di jihaat jihaat ñaan ak toroxlu ci borom bi subhaanahu wa taala bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jëlee kull al wasail al maadiya al mumkina lin nasri fi xududi taaqa al bashariya mbooleem mooy yi nga xam ne yuñ mën a teg loxo la am mbaar mu ñuy defar laaj ba xam ki ngay xeexal fu mu ñi ngay xeexal nuñ toll ak defee mbooleem lim war a def moyens yi mu war a jël yépp mu jël ko ci fi nga xam ne fi la kàtt nag doomu aadama mën a yem aha foofee nag la soog a jublu ci ñaan loolu la wax tawakkul loolu mooy tawakkul wakiirlu ki koy def day jël moyens yépp yépp yépp yépp asbaab yépp yépp yépp lay jël ba mu jeex ba ku ko gis da ngay jàpp ne kii moom xanaa moom daa jàpp ne mbir yépp ci asbaab yi la nekk su noppee nag lu war ci yàlla ba nga xam day mel ne gisatut asbaab yi loolu nag lu jafe la loolu lu jafe la yonent bi alayhi salaatu wasalaam guddi googu mu fanaanee ñaan ana lu doon wax allahuma anjiz lii maa waadtani allahuma aati maa waadtani allahuma in tuhlik wala in tahlak hadihi al isaba wala in tuhlak hadihi al isaba loo min ahli salaam wala min ahli islam laa tuubadu fi l ard lang ma digoon maa ngi sàkku nga teewalal ma ko yàlla li nga ma digoon maa ngi sàkku nga jox ma ko te yow yaa ma digoon ixda taifatayni yàlla mbooloo mii suñu alkoo ci waa lislaam kenn du la jaamoo ci kaw kenn du la jaamoori ci kaw suuf maanaam ñii buñ la buñ buñ sàgganee loolu tekkiwul ne ñooñu buñ faatu woon dafa amut saxaaba yu des Madina am na ñeneen ñu fa nekk di jullee ka woor waaye ñii daanaka mën nañoo wax ne ñële di mën a jullee ka woor seenu jullee ka woor a continuer mi ngi dépendre ci ñii bu ñuy faagaag bu ñu faagaagalee it ca ñoom lañ jëm te kenn du fi desat ci kaw suuf koo xam da jaamu yàlla nga naan da julli wala dangay ngay woor wala da amati. kon badar li tax jullit ñi war ko fàttaliku mooy loolu mooy tey koo xam ne tal ngaa def genn jaamu yàlla rek mbooloo moomee la suñu jeexoon takk fa la lislaam bi jeexee fa la lislaam di fay keroog yonent bi sallallahu alayhi wa dafay ñaan di ñaan di ñaan di ñaan ba kaala gi mu tegoon ci mbagg mi dafa wadd kon ñaan nga yitteel na ko lool moo tax man toujours damay wax ne ñaan léeg-léeg nga gis ko ko wayefal lool nga xam ne bu doon ñaan daanaka ñaan gi day mel ne du ci benn effort bu dee bu defee nii rek daane nii suñ borom du de ndax ñaan gi ci bopp moo laaj toroxlu dafa ak ubudiyatu gu leer naa ñu da cee nekk tàllal say loxo yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàgg naa ñaan ba ay poqtaanam nga boo ta boo tollee fee di seen poqtaan it tàllal tàllal tàllal tàllal ba sa kaala gi wadd ba Abubakar ni nga xam ne li muy gëm ku gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane ko yaa nabiyallah kafaaka munashadatuka rabbak fa inna sa yunjizu laka ma waadak doy na ci boppam xaa xaal gi maanaam salaa ñaan gi ko ba nga xam ne moom itam daanaka da ko xaw xaw mel ne ko yedd sax waaye doy na nag doy na sa ñaan gi doy na yàlla dana la jox la yàlla dana ko jox waaye dafa xam yàlla rek ku la gën a xam yàlla gën la koo jege gën la koo moytu gën la koo ragal gën la koo wet li olof naan eh, ndox xama soxmaat day yem ndox ma mu dëkkal loolu moom xam naa soxmaat lay doon waaye gis nga ñi nga xam ne dañoo jege yàlla te xam yàlla ak ni muy soppaxndikoo ci kawlu bi ak ni mu gaawe wa ma amruna illa waxida kalamhin bil basar ñooñu ñoo la ko gën a wattandiku gën la ko ragal gën la ko moytu itam borom bi nee na istastaxiisuuna rabbakum fastajaaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdafina wala murdifi fàttaliku leen ba ngeen di xetlikoo seen borom kon xetliku ci yàlla lay jëm ndax istixaasa googu baat bi yàlla jëfandikoo ci ñaan muy fastajaaba ud'uuni astajib noonu la jëfandikoo ci baatu istixaasa istixaasa mooy sàkku xetal ci yàlla lay jëm ba ngeen di sàkkoo xetlikoo seen borom mu wuyu leen nam leen wuyoo dana leen anni mumiddukum danaa leen tëbb amaddahu rabbul anaam bi jundi am laakin izaam li adadin laa li lihaam ardaw dawit dawit azumi na mi ngi wax amaddahu rabbul anaam borom mbindeef yee ko tëbb bi bi bi jundi am laak maanaam bi am la bi am laakin jundin ci ay malaaka yoo xam ne ay soldaar lañ malaaka yu mag izaam nga xam dañoo ñëw bari lim ba laa li lihaam loolu mu fas yenn ci ahlu siyar dañoo wax loolu sëñ sëñ Tuubaa dafa ànd ak ñoom ci wax jooju mooy dañoo xam ne maanaam malaaka xajut benn malaaka sax xajut ci mbooloo mu toll noonu borom bi wuyu leen tëbb leen ay junni ci ay malaaka junni yooyu da ko tudd daf daf leen a daf leen a renforcer waat yeneen junni waat daanaka ñetti junni mën nag kon xeex bi ci boppam waxuma la muy ñor saxaaba yeeg yonent bi waaye yàlla ci moom la xeex bi njëkk a ñor ndax wallu moom kuy wallu ni muy walloo rek ki nga xamee ne lii bi ñor na xam nga ki nga ne kaay wallu moom mu yebalal la benn xale bu ndaw ak ki nga ne kaay wallu moom mu yebal ay malaaka ñu ñëw pour wallu si la kooku li ngay def ñor na ko imam Buxaari yi rahimahullah ci bis boobu bokk na ci ñaan yi mu toxalee ci yonente bi sallallahu alayhi mooy dane yonente bi dane inni allahuma inni anshuduka ahdaka wa wa'dak allahuma in tasha la tu'bad ba'da al yawm loolu imam mu ne yàlla maa ngi lay jéeb sa kóllëre ga sa dël ba nga jox ma ko yàlla bu la neexee nag yàlla bu la neexee nag ñu jaamu la yem fii moom bu la neexee ñu jaamu la fii fekkee da ngaa bëgg maanaa kenn du la jaamati bu la neexee bu la neexee mu jam mu yam fii <laughs> loolu de moom ku ko wax kilifa ku bëgg ku ko jaamu moom dana am dana am leneen lu xew waxin dafa am solo ak ñaaniin waxin ak ñaanin ku la gën a xam yàlla xam gën laa xam nu ñuy ñaane ñaan mii nga jàpp ne daa yomb léeg-léeg nit am lu ko dal loo xam ne si xir gu xir gu rëy gum xiroon am nu ñaane noo xam ne ba loola dalee ci kaw rek mu am jafe-jafe yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas naa fekk benn saxaaba mu tëdd mi ngi tuutee tuutee tuuti ba mel ne am farx maanaam ab cuuj di ko xool ba yàgg mu ne ko yow xanaa daa am looy ñaan mu ne ko man de danaa di faral di wax yàlla naan ko loo ma nar a mbugale yow mal xiyaam mbugale ma ko ëtt mu ne ko loolu da nga koo yow koy looloo la tegli tee ngaa ñaan jàmm rek luy loolu looma ma nar a mbugale ëllëg mbugale ma ko fii loolu lañ koy waxe tee ngaa ñaan jàmm rek sama benn nijaay dama mas a wax ne ma dama mas a wax yàlla ne ko famille bi ma bokk yépp loo leen nar a teg nanga ma ko teg waaye nee na am na lu ma dal loo xam ne ca bis booba maa mujj wax yàlla ne ko man damaa ñàkk jom rek li ma wax mënuma ko waaye nee na baa waxee loola ak ba loola dañe benn booy ñaan da nga xam ne nga ñaan ndax fi mu toll nii même am na jamono yoo xam ne jamono yi ñuy nangu ñaan la sax boo waxee affaire bi day jàll mi ngi mel na nga juum ci numéro ab euh, ab numéro bu newoon fii ci kaw rek nga juum ba ba ba laal ko nii rek du ko du tey day day nit dalee wax ala sëñ su yow xa asala alo alo alo nga de fekk wuyu nañ la bu yàgg moo tax ñaan wayufut noonu ni mu amee doole ci ñu lay nangul noonu la amee doole itam ci boo ci ñaanee loo attunut yàlla nag ci yërmandeem su fekkoon ne ni muy gaawee nangul nit ñi seen yu baax yi koy ñaan noonu la leen di gaawee nangul yu ay ay kon ñu bari seenu dig jeex na bu yàgg walaw yuajjilu llahu linnaasi sharra istijaalahum bil xayri la qudiya ilayhim ajaluhum Abu Bakri ne ko xasbuka ya rasulallah alaxta ala rabbik lakkal nga sa boroom doy na yaa rasulallah doy na loolu ku xam ku xam dëgg-dëgg ku xam dëgg-dëgg maanaam waxinu abubakrin wii ak xaala ba sallallahu alayhi wa sallam tolloon da xam ne maanaam mënu koo ñàkk a wax lii abubakar ni mu gëmee yonente bi sallallahu alayhi ak ni ko dëggalee ak ni mu xamee yàlla ci ne lu lu mu wax yonente bi dana ko def waaye ñoom ñaar dañoo bokkutoon xaala buñ nekk xaalaat yi duñ duñ duñ bokk yonente bi alayhi salaatu wasalaam badar gis nañ ko mu jekk-jekk rek tëpp daal di sol mbubum koŋam daan ne sa yuh zamul jamu wa yuwalluuna dubur mbooloo mi seeni seeni bal jeex na ñépp lañuy gañe ñépp danañ daw bisub ajuma ñaar fukki fan ak juróom-ñaar niki tey fukki fan ak juróom-ñaar ci atum ñaar ci gàddaay gi ci la xeex bi amee woon bi daalika al yawmu xasal lana amaanun min wajal loolaa tax nu mën a toog fii te dara xewul bi daalika al yawmi la woon xasal lana min wajal yonente bi sallallahu alayhi ne ko allahuma fa nasruka alladi waadtani bi mu solee mbu mu koŋam ndimbal lang ma digoon allahuma ahnihim il gadaat yàlla alag leen ëllëg bi nga xamee ne jullit ñi taxaw nañ ci sàppay xeex yonent bi sallallahu alayhi wa di leen jubbanti di jubbanti seeni sàppe comme nim leen di jubbantee buñ dee julli mu ngi yor ab bantu fet ñëw ba tolloog ku ñu wax sawaadum nu xusayya daa di ko koy cuut cuut ci biir bi cat li catu fett gi la ko cuut ci biir bi ne ko sa dënn baa ngi génn istawiya sawaat tollool ak say moroom sawaat ñenk li ko ne ko aw jaata nii fa aqidi nii mettital nga ma de te daay fayu damay fayu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ko nga ne lan mooy ko damay fayu yaa ma jam te yow ci maanu ngay dox sallallahu alayhi wasallam ci toroxloom daal di dindi biir bi fa kashafa an batni ne ko istaqid fayul mu daal koy lëng moom sawaat foon biiru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga sawaat fay fayoog yonente bi sa taxu ko jug ay pexe lay def salaa salaam ne ko maa xamalaka ala hada ya sawaat lii nga def nii loo ci jublu dangaa waxoon ne da fayu ma ma dindil la sama biir nga nga foon ko mu ne ko ya rasulallah qad xadara ma tara fa aradtu an yakuna axirul ahdi bika an yamassa jilduka jildi yi li teew moom du lu ma lay nettali xeex baa ngi nii dee moom lu teew la te maa ngi jàpp ne mën naa am ma dee ci xeex bii damaa bëgg nag àddina ci boppam li ma fi mujj laal mooy saw yaram yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu laa fi bëgg laa laa mujj bëgg laal ci àddina ku muus ku muus la woon loolu lépp ak bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lay teg ñoom ñépp dañoo maaso woon ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam topp ci ginnaawam di xeex di xëccoo xeex ba ni ko sëñ Tuubaa waxee tanaazaul mawtu maa tanaazo yonente bi alayhi salaatu wa salaam nag tàmbali di leen jox ay orientation ku xam guerre la ku xam plan guerre la ne leen ida aktabukum farmuuhum wastabqu nablakum su ñu leen jegee rek fett leen bu kenn fett te jegewuñ ndax fett dafa am distance bu muy jël na ngeen bàyyi bañ jege ngeen soog a fett te fett yi itam bu leen ci gaawantu di fett yu bëri na am yu ngeen desal jaasi nag moom bu ko kenn bocc xanaa ñu muur ñu rek bu ñu songee nag moom foofu la jaasi war a génne daal leen di soññ ñoom ñëpp ci xeex daan ne moom moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam walladi nafsu muhammadin bi yadihi laa yuqaatiluhum alyawma rajulun fa yuqtal saabiran muhtasiban gayra mudbirin illa adxalahu llahu aljanna maa ngi waat ci yàlla mi nga xam ne bakkanu muhammad ak ruuxam ci loxoom rekk la nekk kenn du xeex ak ñoom tey ñu rey la fekk bañ lay rey yaa ngi muñ yaa ngi sàkku tiyaaba wane woo ginnaaw lu dul da nga dugg beneen riwaaya bu imaam muslim indi mu ne bi yi jegee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa jekk ba yàgg mu ne qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard jug leen yéen ñépp jëm ci àjjana ju gën a yaatu asamaan ak suuf Umayr ibn al-Hammam ba mu déggee wax jooju ne ko yaa rasulallah ajannatun arduha as-samawati ardu ajjana ju gën a yaatu asamaan suuf mu ne ko waaw mu ne baxin baxin eskay sallallahu alayhi wa sallam ne ko maa yaxmiluka ala qawlika baxin baxin baxin baxin wax loo ci jublu mu ne ko illaa rajaahu an akuna min ahliha damaa yaakaar rek ne danaa bokk ci waa ajjana sallallahu alayhi wa sallam ne ko fa innaka min ahliha ci waa ajjana ngay bokk mu daal di génne ay tendrement yum de yum dencoon lekk ci tuuti ba yàgg mu sànni li ci des daan la in ana xayitu xatta akula tamaraati hadihi innaha la xayaatun tawila su ma nekkee àddina di lekk ba tàndarma ji yeex ma xam ne kon kon sama dund gi yàgg na amatuma jotug sax di àggale tàndarma ji daal sànni tàndarma ji fale dugg ci biir noonu yi ba ñu faat ko mbokki jullit yi ñooñaa wal kullu minhum shajua yabgi liqaa aw yusraa li xubbi maayil xumami ñoom ci boppam ñu nërmeel leen lu yomboon fi ñoom la parce que dañ koy wut ndax li nit ki di ñaan ci julli naan yàlla may ma shahada ba xëy bis mu jàpp ne shahada ngi nii loolu moom xéewal la koy jàppe goo xam ne danaan lañ la ma doon ñaan am naa ko moo tax ab jullit naqaree xeexal ab jullit neexut a xeexal moo tax noonu ragal leen ñemewuñ leen koo xam ne yow daa bokk ci fay ñaan nga am shahada yàlla may la shahada nga dee ci yoon yàlla kuy xeex ak ku mel noonu moom wax dëgg yàlla day day awf ibnu alxaaris ibnu afra ne yaa rasulallah maa yudxiku rabbu min abdi dagge ca lang garag ne ko waaw sama borom yàlla lan moo koy reeloo ci ab jaamam yonent bi ne ko xanaa jaam boobee summi lépp loo xam ne soloon na ko loo xam ne bu ko jëesi dóoroon du agsi ci moom mu mu mu sóob boppam ci biir noon yi xaasiran nga xam du sol sax mbubum koŋ mbubum mbubum koŋ mi mu soloon mu daal di koy futti sànni ci àll ba sànni ko nale daal di jël jërseem dugg dugg ak yaramu boppam ndax xam nga mbubbum koŋ bi da nga koy sol pour buñ la dóoree mu dal ci waaye ba mu xamee ne yàlla la koy bégloo dëgg mooy nga wan ko ne ko maa ngi nii jëmmu jaa ngi nii loolu yàlla bëgg sama jëmm ngi nii ndax yaa ko moom maliki naas ilahi naas qul a'udhu bi rabbi naas maliki naas ilahi naas yàlla daa moom lépp sëñ Muhammad Rasid rahmatullahi alayhi daana wax naan ku moom lépp ku ko sédd mu mer ku moom lépp soo ko seddee mu mer da nga koy jox lépp rek moo tax suñu borom dafa jënd ci ñoom inna laa ishtara la wax ishtara min al muminina da koo jënd ci ñoom wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluuna fi sabilillah fa yaqtuluuna wa yuqtaluuna waadan alayhi xaqan fi tawrati wal injili wal quran wa man awfa bi ahdihi min allah fastabshiru bi bay'ikum alladi baayatum bi wa dalika huwa alfawzu alazim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xeex bi laataa xeex bi tàmbali am na ñu wax ne bu leen kenn rey ndax naam génn nañ màkk waaye dañ leen a forcé mu tudd ci ñoom abul buxt abul buxtari ibnu hisham ku bari kóllëre la moom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom abul buxtari moom daa bokkoon ci ñi nga xam ne saxiifa boobu nga xam ne dañ ko masoon a bind embargo ci yonente bi sallallahu alayhi daa bokk ci ñi ci doxoon ay tànk pour ñu ñu xotti ko dañ ko taxoon foofu ci kaaba gi te mës ta lor yonente bi sallallahu alayhi wa teyit ay nitam jug nañ mu jug mënta ñàkk jug ndax dafa am loo xam ne boo taxasee bokk bu ñëpp jugee faaw nga jug doonte jugoo mën ngaa jug te jugoo ndax sa moom bu jugut jugoo rek abbas ibnu abdul mutalib sallallahu alayhi wa sallam nee na moom itam bu loolu nag ba ko abu xudayfa am na kàddu gu mu wax ah, ah, xam naa ne am rëcc am rëcc am rëcc daal laal na ko daal am rëcc laal na ko nit daal du mat a naqtulu abaana wa abnaana wa ixwanana wa ashiratana wa natrukul abbas wallahi la in laqiituhu la uljimannahu bi sayf léegi nag kon dañuy rey suñuy baay di rey suñuy doom di rey suñuy mbokk di rey suñu giir abbas ñu di ko bàyyi wallahi bu ma dajee ak abbas danaa ko ngalaab saa jees saa jees wax wax ji agsi ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci waxiinam ak teggiinam mu ne waaw ndax dañuy ngalaab jeesi bàyyi toxub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam omar daan ne ko yaa aba xafs mu daal di wax saydna salala moo ne yaa aba xafs a yudrabu wajhu ami rasulillahi bi sayf ndax dañuy jël jaasi di ko jëmale ci xarkanamu bàyyi toxub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam omar ne ko yaa rasulallah daani fa li adriba unuqahu bi sayf fa wallahi laqad nafaq naa ne mu ne bàyyi ma yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma dagg doq kan abu xudayfa ci saxaaba yi la bokk mu ne wallaahi naafiq na ngay wax mu ciy teg baat abu xudayfa nee na maa ana bi aminin min tilka alkalimati allati qultu yowma idin wala azaalu minha xaaifan illa an tukaffiraha an shahaada wallaahi baa jógee ci xeex boobee baat boobu dañu ma di ci am di ci amum tiit baat boobu dañu ma di ci amum tiit di ci ragal lenn rek laa xam ne bu ma ko yàlla defalee mu faral ma bàkkaar boobu muy shahaada ma dee ci yoon yàlla kon ndekete baat mat naa bàyyi xel léeg-léeg nit léeg nit wax loo xam ne si waliyaasu billaahi taala lu rëy fa yàlla la te moom mi ko wax du ko yëg wa taxsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim wa laqad qaalu kalimat al kufri borom bi am na ñu ngi ko waxal ci ay naafiq donte abu xudayfa ku ne xam na ne moom loola ba nga koy wax waxu waxewu ko woon ci sax ci ci ni nga xamee ne ñun noonu lañ ko jàppe waaye nee na baat boobu mosuma dañ di ko saraxeel mosuma dañ lu ma xam rek lu ma jàpp ne war naa tax yàlla baal ma baal boobu wax naa ko te shahada dong laa jàpp ne bu ma ko yàlla mayee dana danañ ma faral bakkaar boobu te yàlla may na ko ko ci xarbul yamaama ci la am shahada dafa mel ne waxtu julli bi dañoo wax ne jot na yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mi ngi sababoo ci ak néew doole ci wàllu économie loolu nañ ko bàyyi xel ndax tubaab yi bii ñëw fii ci Sénégal ñëwuñu woon ngir foqat ci si suuf si dañuy ñëwoon ngir commerce waaye dañoo dox di dox di dox ba ci biir ñu dem ba jaxase buur yi fi nekkoon ñuy xeex jaxase gi mooy bi ñuy door a ñëw dañ doon fay galak dañ doon fay lempo di ko fay buur yi ba tax na ñu gis ci intérêt ci tubaab yi ba tax ñuy xëccoo ci seen biir Lat Joor ak Maajooja daanaka li gën a sabab seenu xeex seen xëccoo nguuru Kajoor weesuwut njariñ loolu yi daan jóge ci tubaab yi di dugg si ci buur bi kee jàpp ni kon moo war a yëlif kii jàpp ni moo war a yëlif ñuy xëccoo ci lool loolu dañ koy bàyyi xel baax bàyyi xel ni wàllu économie day xeex bu am doole ci ab xeex bu la ci nit rawee boo yeexee dana la jiitu ba faaw jullit nañ bàyyi xel ni doole alal la ak xam-xam ak ak ak te suñu borom li mu digle ci alxuraan mooy wax a aiddu lahum mastataatum min quwa benn façon doole rek boo ko bàyyee sab noonu rek ba mu gañale ci rek boo dana la gañe ba faaw ñett yooyu yëpp nag ñu gëm nii dañ ko war a toppatoo ngir xeexale ko diine du caageen dañuy wut pouvoir ngir àdduna mbaa ñu wut alal ngir àdduna mbaa ñu wut xam-xam ngir àddina waaye dañ koy wut ngir diine ndax jamono bu ne damay wax ne ka jëkk a xalaat ba avion mën a naaw ak li muy jariñ ci àdduna bi bu fekkoon ni ab jullit la te am pas-pas aw yiwam nu muy toll kon ñu jànge ci itte ju kawe di nekkoon ci saxaaba yi muy rawale seen diine jaral na leen bàyyi seeni alal ñàkk seen lépp ngir diine ji mucc kon itte ju kawe dañ koy jàng ci ñoom kawe itte waaye dañ ciy jàng it ba tey ni itte ju kawe dëgg mooy seet lu mel ni lu jomb nga taxaw ni daa war a am ndax ku ne xam ne yonent bi sallallahu alayhi bi muy génn waajalutun xare bi ñam doon dajeel ñam jubloon a dogale ci ay ñeent fukki nit lañ doon toll mu préparé lu mat ñett téeméer nit kon ñoom duñ doon seen morom waaye ba yàlla dogalee loolu la rëcc ba ñee waajal seenub xare ñoom jóg ngir xare si lu ciy pexe ndax dañu war a dëpp ña xalaatoo ne dañuy dëpp dañoo jàpp ne daal normalement comme ñun jóguñu woon ngir xare waajaluñ ko buñ ci duggee duñ jàll waaye yonte bi li gis mooy pas-pas mooy lépp ñu sóobu ci pas-pas ñett téeméer nit daje ak lu jege junni nit ñu dàq leen gañe leen nangu seeni seeni seeni alal loolu kon day tekki ni itte ju kawe day da ngay fekk lu mel ni lu jomb nga taxaw te mu ci fas yéene mu am loolu ba tey lu ñu war a jànge lu ñu war a jàngale ci jataay boobu xare badar boobu waaye ba tey ñu jànge ci ne li ñuy wax mubaadara te mooy jëkkee mbir ab jullit daf ko war di jàng daa war di jàng bañ a doon ku naan teg rek di toppandoo waaye nay jëkke nay ese jëkke mbir muy li nga bëgg taxawal ci mu taxaw te bul ci xaar kenn ak nu mën a demee loolu bokk na ci lii dimbali ne fi mu toll nii muy jégg baa ngi ñëw nañ jóg dogale ji ko ci kaw nag maslaa ndax yonte bi forcé kenn dafa wax ne bu ngeen ko defoon de dana baax ci yéen ngeen mën naa am yàlla jox leen xéewal yéen yor léegi mu baadara boobu laa wax ni dañ ko war di jànge ci lu mel noonu nii muy jëkke mbir te maa ngi jàngat fan yii benn téere bu ñuy wax al aadatu saba linnaasi l aksari faaliya ka ko taalif dafa wax ne juróom-ñaari jikko yi nit ñi mas a jëf lu leer ci àdduna am fi jeexit ñëpp dañuy jikkoo juróom-ñaari jikko yi ba ci jëkk ci juróom-ñaari jikko yooyu mooy mubaadara boobu ma wax mooy jëkke mbir ñu ëpp ci nit ñi taxawal dara ci àdduna di fi taxawal lu leer la ñuy def duñ ko toppandoo waaye dañ koy yëg seen yëgeeku bopp li ñuy yëg jëkke ko loolu ba tey ñu jàng ko ci bu ñaareel ba ca lam ca teg ci li nga xamante ni képp ku fi mas a taxawal leer ci àddina fokk nga jikkowoo ko mooy bala ngaa jóg nga plan sa plan ba mu leer nga doog jaar ci yoon wi loolu koo xool ko fi mas a taxawal dara ci àdduna jugul rek tañax yi dox waaye day plan mbiram ba mu leer bu jógee ci xam-xam lay dox waaye du dox ci kaw yi tañax ñetteel ba nit ku ne li koy wër ci ay itte day bari nga jiital ba gën a ñor teg ci ba ci topp teg ci ba ci topp loolu ba tey ci lii tax dadaa taxaw ci la bokk ñeenteel ba nag koy jaxasool ni nga yéenee sa bopp jàmm nga yéenee ko ko jàmm koy jaxasool ku ne ni nga yéenee am bénéfice na ko yéenee bénéfice noonu ndax relation yi am diggante nit ak nit ñeenti xeeti relation la am na relation boo xam ni relation ma jariñu nga jariñu lay doon boobu mooy bi ci gën relation boo xam ne damay fas yéene jariñ sama bopp bëgg nga loru nuñ gën a gaaw a dakkali relation bu ñeboo def ko parce que da yàqu bu ndax su ma jaxasoog nit ki jàpp ni damaa war a jariñu bëgg mu loru moom diir bu gàtt li nekk sama xel moo koy tuuse ci xelam ba du day yéene jariñu bëgg ma loru man te relation boobu bu waaye bu ñeboo ni ko tipp ndax du jàll ba ca des mooy nga bëgg a jariñ nit ki ba lor sa bopp bëgg a jariñ nit ki ba lor sa bopp nit ki sa buntu yëpp sans condition loolu normalul ba tey bu ñeenteel bi mooy relation bi nga xam ni yéen ñaar ñëpp yéen a ciy te mooy relation xeex guerre bu doxee diggante nit ak nit ñëpp a ci lor ñu xam ni yonente bi da doon fayu waaye jugul pour xeex diine islaam jàmm képp a ko tax a jóg jàmm jooju nag bu ku ko nar a gàllankoor dañuy wut lu mel ni aw ay défendre ko waaye xeex bi du pour xeex waaye xeex la pour jàmm du pour aw ay waaye pour jàmm la danañ ci jànge ni mbooloo mu ànd fokk ñuy diisoo di yëgoo waaye li ñuy wax dictateur muy joxe ndigal rek gëmm daal ni force dañ ko war a def loolu lum taxawal tey bu ëllëgee dina yàq lu ko ëpp kon yonente bi sallallahu alayhi moom moo gënoon a yay ci joxe ndigal rek daal ni acca force ñu def ko waaye li ko suñu borom digal wa shawirhum fil amri mu doxe ko saxaaba yi doxe ko ginnaawam muy wa bay na baynahum loolu yi jullit nañ koy bàyyi xel bu baax ñetti nit ñu bokk dara sax nañuy bàyyi xel diisoo waxtaan ba seeni kàddu dëppoo ñu doon caa dox buñ ca doxee boobaa lépp xew leen waaye danañ jàng it yonte bi xikma bi mu am ci daawa xikma lii mu leen wax ñor na ko waaye def ko daa mel ni ku leen ko gaaral rek bàyyi leen ci seeni xalaati bopp ba xam nu ñuy def xikma boobu ba ci daawa bu mën ki lu ci ëpp loo bëgg mu def ko da ngay fexe ba mu gëmal ko boppam yëgal ko boppam bëggal ko boppam waaye bu fekkee léegi da nga ko cee force sax mën naa doon lu waroon doon njëriñam mën mu gàntal ko moo tax sëñ Saliou daan wax donga yi ni leen gone yii dee leen leen yar ci pas-pas te bañ leen yor ci ak yar ci ak noteel ndax ak noteel li muy yàq moo ëpp li muy defar xikma bi yonent ci ñim doon àndal sallallahu alayhi wa dafa feeñ foofii muy jëggub xuree si na di ñëw tey ngeen a génn dogale leen ndax lee yàlla may leen may leen leen ko may leen seen alal jooje kon première guerre bi damay wax ni wàllu économie la parce que dañ leen a dañoo nangu seeni alal nangu seen i kër seeni i bien yëpp ñu bàyyi ko fa yonente bi kon li sabab xare bi mooy fayu ca lee ñu leen defoon waaye biñ demee ba xare bi jeex ba tey lu ca mujj xëccoo lu jëm ci wàllu économie nañ bàyyi xel ñaar yi bu baax nañ bàyyi xel ni xare bi la ko sabab wàllu économie la ba mu terminé xëccoo bi amoon diggante saxaaba yi wàllu économie la ndax màngi yi dañoo màng màng mi ña ko jël ni ñun ñoo ko moom ña doon dàq noonu ñu leen bu buñ dàqutoon noonu du ngeen ci jot ña doon aar yoon tamit leen nun dañu doon aar yoon tamit ngir bañ ñu dal ci kawam kon ñoo ngi yéen ko bokk aay alxuraan wàcc ni yasalunaka anil walil anfaalu lillahi war rasul baat di digal nag baat bu am solo jullit yëpp war koy bàyyi xel mooy fattaqullah wa aslihoo daata baynikum na ngeen fexe bay ragal yàlla tey defaree seen diggante kon ñu xam ni kon économie ak xam-xam ak pouvoir ñett yii kuy xeex na nga fexe ba sàkk ko ba teg ko ba noppi nag loo cee doole nga dool ko caa doole te bu taxawee lu ci ëpp la ngay xeex mën nga caa jot la ca desit mooy dafa mel ni jamono biinu nu toll ña yonte bi xeexaloon ca maddina ba gañe leen muy juif yi yahudi ci affaire riba bu ñu doon jëfandikoo te mooy boo ñëwee di leb si alal di leb si xaalis di leb si dara ñu laaj la loo fii garante nga fab lu am loolu war a jox leen ko ñu garantel la ko fab alal jox la ne la nag booy fay bu ñu la joxee téeméer booy fay na nga fay téeméer ñaar fukk riba boobu bi alxuraan wàccee ba araamal ko dañoo jàpp ne yonte bi daa ñëw rek yàq leen seen wàllu économie waaye dañoo taxawul ci geer ba dañoo continuer di guerre di guerre ba jamono bi ñu toll nii gagné nañ terrain bi parce que banques yi ñoo fi nekk muamala rabu muamala muamala rabu ya la ñuy doxal te dañuy sakk buntu yëpp ni la fenn mënoo faa jaar pour jàll ba mu des buntu bii kon ñoom seenu geer taxawuñ ba tey mu mel ni kon ab guerre boo taxawee mbaa nga noppalu am nga problème te am na koo xam ni moom wàllu économie képp la doon jàngale te dafa wax ni waxuma la diine mbaa mbaa lenn waaye économie sax laajul taxaw mi ngi mel ne ak non yi doo dem fenn di fa taxaw doo noppal fokk daa war di dox daal di wax ni ñaar rek nekk ci àdduna kii mi ngi mel ni àllub Afrique bi boo fi duggee da fekk gaynde da fekk ak kéwél kéwél gi daa war a xëntewoo mën a daw lool mbaa du mucc gaynde gi bu xëntewoo mën a daw lool du dund te àdduna ñaar ñi rek fi nekk yow loo jàll jàll jàll sew xel bu mu taxaw boo yaafu si nag waxaale su ko dañ lay dunde waaye yow mi yow mi jàll sax di wutub dund sax boo yaafu si doo jàll waxuma nag yaafus bi moom bu yaafu si kenn waxaale woo moo tax mu ne àdduna ñëpp ñoo rab yi ci àllu Afrique bi ñooyam ga gaynde gee fi nekk ak kéwél gi gaynde gi bu mënta daw du dund kéwél gi bu mënta daw du mucc kon nit ki wër sa taxaw fa mu toll nay góor góorlu ci des nag jamono bii ñu toll nii li ñu war a xëntewoo ci ay ngànnaay mooy lii ma wax nii muy xam-xam jamono bi ñu toll nii science ci la tubaab yi jiitoo ñëpp ba góorgóorlu ñu topp seen ginnaaw ci force loolu nag buñ dañ ko war a jéem a régler régler gi nag mooy fab façon ngànnaay mel ni bañ yor muy wuti xam-xam ba ba ba ba mën a sukkandiku ci suñu bopp ndax nit ki li feeg sukkandikuwul ci boppam bu lenee jàll ne jàll nit ki bu jàngul boppam ba xam ko lépp lu mu ne xam na koy daf ko jaawal mais xamu ko boo umpalee sa bopp mënoo xam lenn mu leer kon suñu jëm bopp lañu war a jëkk jàng doog a seet nag ni ñuy doxe te Sëriñ tubaa cig mu jëm tubaab yi dañoo ñëw ni ko dañoo bëggoon a bëggoon nga boole noog ñoo xam ne li leen di jàngal xam-xam bii nu yor ngir ñu mën a yor réew mi ngir ñu mën a yor réew mi sëriñ bi waxtaan ceeg ñenn na ci mag ñi am ko ko ne yii tubaab yi di sëñ bi li ñu seq yow di leen jox ñenn ñu di leen jàngal ëpp naa def waaye man ni sëñ Mbàkke Buso boroom xam-xam la xel mi rafet bi sëñ bi diisoog moom dani ko da ngay diisoog ñun am danga nga ñuy jox ndigal sëñ bi ni ko damay diisoog yéen mu ne ko kon nee leen nañu nu indil xam bi te bàyyeenu sunub yar nañu nu indil xam-xam bi te bàyyeenu sunub man ni loolee mu waxoon mooy dëgg waaye tubaab bi du nangu loolu ngir bu la joxee xam-xam bi bàyyee la sa yar da ngay jariñ sa bopp te lam bëgg mooy doo fi nekkal sa bopp doo fi nekkal say mbokk waaye ñoom nga fi nekkal moo tax di bëgg a boole yar bi ak njàngale mi waaye man ne nit bu buñ ko taxawut day taxaw boppam ñun ñoo war a jël idée boobu suñu mbàkk bi sooxoon bu ñuy jàngi arab nañ dem jàngi diine ji yar ba aada ja ñu bàyyi ko aada moom jëru kenn booy jàng tubaab nga jàng xam-xamu technologie bañ la rawee andi ko aada ja nga bàyyi ko fa boobaa da nga am identification bu leer boobaa la ñuy mën a fés doon suñ jëmmi bopp doon suñ netu bopp doon suñ euh, am suñ liberté bopp waaye bu dul loolu rek benn ngay wax ba doon naar te ab naar doo ko doon mukk ci àdduna wala doon tubaab doon doon tubaab bu doon doon mukk ci àdduna waaye xam-xam lañ soxla xam-xam ne fu mu mën nekk dañ ko war a jëli boo ko jëlee ñëw nag seet noo ko exploité ci sa jëmmi bopp ak sa njabootu bopp ak sa suufas bopp yàlla nañu suñu borom defal dégg ak topp ak jëriñu jërë ngeen def asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ bi wax ji gàtt na waaye am na solo lool mel na ni bu fekkee ne mbooloo mi teew ñu ngi teewlu jàpp naa dinañ ci jëlee ay bind yu am solo xëy na waxtu wee xat waaye niñ ko bëggee woon sax gënoon naa yaatu nii dañoo bëggoon bu suñ xaadim noppee jàngat yi ci am yépp sëñ bi leeral ñu ko ndax loolu mooy gën a gàtt te mooy gën a gaaw waaye comme que jamono dafa xat te yitte yi dafa bëri yàlla dogal am yitte ju ko dab moo tax mu demee nii xam naa kon dañuy joxaat suñu xaadim mu wéy wéyale waxtaan wi incha allah. bismillahi rahmaani rahim euh, jërëjëf sëñ euh, Basiru Mbàkke xel koom ci taaliqaat yooyu walla yokk yooyu euh, fànn gi ñu doon waxtaane yàlla may na ko ci xam-xam bokk naa ci ñu ko daan diglu bu yàggoon. ci rajo bii ne woon ci dëkk bi rajo étudiants yi fi daan teg ay bandam yu mu defoon ci wàllu siira yoo xam ne yu am am solo la ci buntu gi comme ni mu ko waxee léegi ñu di ko bàyyi xel di ko yittewoo ndax dafa am lu muy def ci doomu aadama mooy siira eh, xëy na sax ci téere majaalis yi nga xam ne moom lañ daan jàng fii eh, gis ci téere boo xam ne maanaam dafa taxasus ci fànn googu rek rek rek nga xam ne ci lay wax du ma ne amut waaye bariwutoon lool lool ci jamono bi ñuy jàng bi ñu demee fële ci gànnaar nag yàlla dogal na foofu am na ay téere siira yoo xam ne dañ ko bind uniquement pour loolu asalan boo jëloon lu mel ne téere bu ñuy wax xaswatul absaar moom lépp siira la dañ ko taalif ngir loolu boo ci jógee am na beneen téere bu ñuy wax al xasawaat xasawaat dañ cee boole xeex yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa xeex yëpp ku ñu wax ahmad al badawi rahimahullah moo ko taalif mu nekk téere bu am solo maanaam way la noonu itam am na beneen téere bu ñuy tuddee na nasab nga xam ne moom it téere bu ama am solo la ci fànn gu mel noonu ñi ko jàng maa ngi sàkku ci ñoom luñ ko gën a mën a tasaaree ba nit ñi mën cee gën a jot dana baax lool ndax dañuy wax ne démb dafa lëkkaloo ak tey euh, démb bi lislaam bu ko doomu aadama réeree rek day jafe ci moom lool mu mën a yewénal tayam ji nga xam ne dafa jokkaloo ak démb kon dañuy wéyal rek noo ngi tolloon ci wax juré jooju nga xam ne moom la abu xudayfa waxoon bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne abul buxtari ibnu hisham bu ko kenn rey ku dajeeg moom itam bu ko rey abbas ibnu abdul mutalib ku dajeeg moom bu ko rey ndax am na lu tax mu wax loolu ah Abu Xudayfa it am na kàddu goo xam ne tudd naa ko léegi mu ne daal wax dëgg buñ nekk buñ fi nekkee di rey suñuy baay ak doom ak suñu mbokk ak suñu giir ba noppi di bàyyi Abbas moom mbir mi boo ko xoolee day mel ni ak mbokk da ci waaj a dugg ndax moom baayam mi ngi ci biir muy Utba mu ne man su ma dajee ak Abbas danaa ko ngalaab sama jeesi Seydina Omar déggee wax jooju yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dégtal ko ko ne ko ndax jaadu na xar kanamu bàyyi taxu bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñu ciy dóor jeesi Omar alamboo bi nga xam ne mu gane si ko da ko yomb lool ne ko bàyyi ma ma dóor ak doqam ci sama jeesi ji ndax kii am naa feqal Abu Xudayfa nee na baat boobu musuma dañ di ci tiit ak di ci jàq lu dul suñ borom daf ma ko kafaarale ci shahada te nee naa la yowmul yamaama ci la faatu xeex bii nag mbokki jullit yi laata muy tàmbali ku ñu wax al aswad ibnu abdul asad al maxzumi dafa ñëw xeex bi di waaj a tàmbali mu ne xiin xiin xiin xool fan la wara a naane gisut ndox ndax booba saxaaba yi jiitu nañ yéefar yi ci mbalka yi fi newoon ba yàq yépp sàcc yépp tànn seen mbalkam bopp di ca naan comme ni ko xabaab ibnul mundir waxe woon moom nag bi ne xiin xiin xiin amut fu naane ak ñéeg jàpp ko mu ne uahidullah la ashrabanna min xawdihim aw la na aw la amutanna aw la amutunna duna maa ngi kóllërante yàlla ne ñii seen mbalka mii ñu tabax nii danaa ci naan wala danaa ko màbb walla ma faatu daa di waaxu tànk yu dëgër jëm ci mbalka mi Hamzatu ibnu Abdul Mutalib taseeg moom caw ko jaaseem ndëgguli naaw waaye comme xas na kóllërante ak yàlla ci ne maanaam faaw mënta ñàkk naan mu ne day darngu ngir àgg ci ndox mi booba deret jàng ko ci wet yépp xamsatu topp ko jekkile ko mu faatu kon li xabbaab waxoon laataa xeex bi di tàmbali muy xalaat boobu yonente bi sallallahu alayhi wasallam jël ci moom xalaat la boo xam ne boo ama am solo la buñ ko defutoon tey jii ñoo noonu ñooy bokk ndox mi te ñoo leen ëpp kàttan ndax noon bi faaw rek am na côté boo xam ne boo ko ca dominé euh, mën na laa dominé ci yeneen wet yi des waaye am na côté boo xam ne yow itam da ko caa war a dominé waaye bu maasee dominé la ci ci wet yëpp rek su boobaa nga moom day xaw a jafe xoolee li sëñ Basiiru doon wax léegi noonu yi dëgg la am na ay côté yu ñu dominé ci wàllu science fi ci àgg tey mën ngaa wax ne jullit ñi àgguñu fa waaye ba tey am na jullit ñi lu am solo loo xam ne. dañ leen caa domine ci façon boo xam ne ba léegi moo tax seen ngànnaay duñ ko teg te mooy jàpp gi nga xam ne moom dañ fa seenee jàpp ci seen diine ak lu metti metti donte dañuy ñàkk donte dañuy faatu ci ñàkk itam dëkk ci ay néegi ñax ngëm yàlla gi nekk ci ñoom loolu mooy li nga xam ne moom kenn mënu ko foqat am na ñoo xam ne ñu ngi jógee fii di dem ba ci ay réewi tubaab yi Italie wala Espagne wala Amérique di fa dund seen lislaam mu naqari lool tubaab yi te mënuñ ci dara kon buñ foqartee wala buñ la dominé ci yeneen yi nga xam ne ci àddina dong la layam te àddina moom suñ boroom moo dogal ne tubaab yi faw ñoo ñu koy gën a jéem ndax ndax lu tax mooy yitte bu doonee benn faw da ko da ko jekk te ñoom benn yitte lañ am tubaab benn yitte la am muy àddina kese yaalamuuna moo tax suñu borom sax da leen a tuddee ñoo xam duñ ay boromi xam-xam. dane ak akthara naasi laa yaalamuuna ba pare daane aha kay yaalamuuna zahiran min alxayaati dunia man a am na luñ xam te liñ xam mooy zahiru su àddina sii rek nga xam ne kon ci biir àddina sax am na ci lu loo xam ne da leen a da leen a da leen a euh, nag am na luñ ci xam moom te jekk ko loolu itam lañ ca xam waaye wahum anil axirati hum gaafiluun alaxira moom seen yoon nekk fa moom tubaab waxewut alaxira doxewut alaxira jëfewut alaxira te foofaa nag mooy fi ëpp solo ndax saar yi ma tudd léegi muy sóoratul ruum bi nga xam ne fi laa waxee aaya bii léegi sóoratul ankabur bi ko jiitu suñu borom ne ne wa inna daaral axirata la hiya al xayawaan law kaanu yaalamuun dundu ga dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg muy alaxira bu fekkoon ne xam nañ kon ñu raw ñu ci ñoom tubaab yi euh, wàllu addina amut jafe-jafe ñoom fekkee nañu raw nañ leen ci wàllu alaxira beneen bi ci topp mooy tubaab yi dafa mel ne yàlla da leen a tàggat pour ñoom ñuy liggéeyal loo xam ne ñun mënuñu ko def tey boo xoolee tey sunu appareil yi am na xeeti ay application yu ci nekk yoo xam ne tey bi ko tubaab di liggéey liggéeyu ko woon moos ngir ab jullit di ko jariñoo mais tey xool application yooyu nga xam ne moo xam whatsapp bi la moo xam telegram bi la wala yeneen yi ci des da gis benn boroom xam-xam bu ci sos benn groupe dajale ci lu mat ay nangami junni doomi aadama bis bu set mu leen di jox ay bind yu leer nañ ci xam-xam ñu di ko jariñoo donte fi nekk ci àddina bi bokkut tolloowut ñee nga Amérique ñee nga Espagne nangam ak nangam kon ñoom dafa mel ne tubaab bi euh, am na wet goo xam ne dafa mel ne suñ borom da leen caa tàggat muy foo xam ne bu fa jullit ñi jëmoon dëgg-dëgg sax boo moytul mu dox seen diggante ak alaaxira waaye nag lu am solo la sëñ Basiiru moom mi wax mooy fexe ba bañ a fàtte sob cër ci addina wala tam sa nasiiba kamee doon ñaa waaye nag addina moom du sa lépp du sa lépp ñett ci ay poursan ci Quraysh ñoo njëkk génn ne dañuy léewtoo muy Utbatu ibn Rabia ak mbokkam Shayba ñoo bokk benn baay ak Walid ibnu Utba Utba bi ma njëkk tudd moo jur Walid bu dee Shayba moom mbokkum Utba la biñ génnee taxaw ne ana kun ana kan mooy taxaw ci sunu kanam léewtoo ñetti waxambaane yoo xam ne ay lansaar lañ ñoo génn muy awfu muawid alxaaris moo leen jur seen yaay nekk afra ak abdullah ibn rawax ñoo génn taxaw ci seen kanam waaye waa Quraysh comme ñoom dañuy dox ci kaw ak rëy akuk ceddo ñu ne ñun yi ñu soxla gisaguñ leen ñii ay lansaar lañ ñun suñ doom yi bàyyi tax yi lañ bëgg xeexal muy muhaajiroon yi ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag daa ne ubaydatu bnul xaaris jugal xaaris mi ko jur mooy taawub abdul mutalib kon yonente bi ci ay bokkam la tàmbalee su tànnoon te ñeneen xel yi am luñ daj waaye ci ay bokki boppam la tàmbalee ne ubayda jugal ubayda jug mu ne Hamza Hamza jugal Hamza Hamza tun Abdul Mutalib Abdul na ko ne Ali ibn Abi jugal kon ñett ñi mu jugloo pour ñu jàmmaarloo ak ñële ñett ñëpp ay mbokkam lañ xamsatu taxaw ba taxaw ñu jàmmaarloo ubayda taxaw walid taxaw ñu jàmmaarloo ali taxaw ba taxaw ñu jàmmaarloo xeex boobu xeex bu gàtt gàtt la ali ak xamsa daanaka matu deux minutes ñu rey seen adversaire ubayda moo fi xawoon a am jafe-jafe ak walid kenn ku ne dóor sa moroom jees yi waaye ñee bañ noppee ci seenum noonu dañoo ñëw jàppale ko dimbale ko ñu jekkili ko mu jeex foofu itam dañ fiy jàngate ne ay jullit bu ñu àndee bokk benn noon dañ caa war a jàppalante waaye li dal jullit ñi tey jii mooy ñoom ñëpp ñoo bokk benn noon waaye jàppale woon jàppaleen jàppalante wuñ ci seen noonu boobu ñu bokk bal ñoom seen jëm bopp dañoo mujj sax ñenn ñi wut ci seen biir ay noon yoo xam ne si ñoom ñoo ko créer seen bopp ndax bu fekkoon dañoo topp alquran ak li mu wax waxtasimu bi xablillahi jamian ndigal loolu yéen ñëpp na ngeen ngoyandoo ci buumug yàlla gi te bu leen teqli ko kon ak noonu du mën a am moo tax sëñ Tuubaa gis naa fu mu bind wax ne man ittaxada inna wa innama laa yuaadi musliman mu ne am na ñaari baat ci alquran ku leen bàyyi xel doo noonu jullit muy inna ak innama inna ji nee na mooy inna cheytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwa innama ji nee na mooy innama al muminuuna ixwatun man ittaxada inna wa innama laa yuaadi musliman ndax benn noon la jullit ñi am muy cheytaane ak ña nga xam ne ñoo nekk ci ab kuréelam di ko xeexal benn xarit benn mbokk la jullit am mooy ki nga xam ne mooy mbokkum jullitam mu koo jàppee comme nim mu jàppee boppam niñ ko waxe woon léegi ci ginnaaw bi xeex bi di tàmbali ak Saad ibn Muaz li mu wax sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ñoom juróom-benn ñooñu njëkk a taxaw ci la aay bi wàcc haadaani xasmaani ixtasamu fi rabbihim falladina kafaru quttiat lahum siyaabu min naar yusabu min fawqi ruusihim alxamim yusharu bihi ma fi butunihim waljuluud wa lahum maqaamicu min xadiid ñaari adversaire yi ngi nii taxaw ñu xuloo ci seen boroom kii ne li yàlla bëggay am kee ne la yàlla bëgg du am fi atun tuqaatilu fi sabilillah wa uxra kaafira fi ataani taxtalifaani fi hadafayhima haadi li rabbi tilka li sheytaani te loolu moo nekk ci àddina te du fi jug mukk muy ñaari kuréel yooyu ñi bëgg sampu lislaam ak ñi nga xam ne dañoo bëgg samp safaanub lislaam kon xeex bi ci tàmbali bi rek arrangé wut waa Quraysh ndax rayal nañ leen seen ñetti kilifa te ñoom ñoo njëkkoon a sàkku ne nañ léewtoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëw mu ne ko jot li ma ay jemburaay mooy ngëbub ay ngëbub ay xeer mu indil ko ngëbub ay xeer yonente bi salaat salaatu wasalaam daal di koy sànni ne shahatil wujuh xar kanam yu bon sànni ko ci xar kanam yi la ca yéeme mooy xeer yooyu ab ngëb la te noon yi nee naa la mat nañ junni ak nangam amu ci benn noon boo xam ne fa nga toog wenn xeer ci xeer yooyu fekku la fa dal ci sa kaw moo tax sunu yàlla bi xeex bi di jeex mu ne yonent bi wamaa ramayta wamaa ramayta foofu du fi firiwut sànniwoo ndax yonent bi sànni na wa maa ramayta day firi mooy jëmoo id ramayta ba nga sànnee ramayta ju mujj moom sànni lay firi maanaam ba nga sànnee jëmoo walakin allaha rama walakin allaha rama kon moom daan nañ ko ciy génne xamal ko ne ko mbir mi lépp sunu boroom la qul inna al amra kullahu lillah wa ilayhi yurja'u al amru kullu lépp ci moom lay dellu ndax parce que kaw nu bi yëpp ni muy doxee ay tadbiraatam dong la fi mu toon daanaka ab ab ab ab benn kaset la bu suñu borom teg rek ma ñëw fii di def waxtaan fekk sama borom bi noonu ne ko lawul mahfuz waxtaan wi di waaj a jeex ñu sañ sëñ Bas day dem mu far taalix ci te wax ca jeexagut wa ma min gaa'ibatin fi samaai wal ard illa fi kitaabin mubin alam taalam anna allaha yaalamu ma fi samaai wal ard inna dalika fi kitaabin inna dalika ala allah yasir lépp noppi nañ ci bu yàgg a yàgg rufiatil wa jafati suhuf luy répété wala nii rek waaye lépp noppi nañ ci loolu nag jullit bi ko xam daat lay tàmbalee dund ak féex moom tafaatoogut wa maa ramayta id ramayta walakin allaha rama kon ba nga sànnee wala ba nga sànnee booba jëmoo yàlla moo jëm ndax kàttanu mën a jël ay xeer mu dugg ci noon yépp benn nit song benn nit dong boo ko doon dàkk pour maana jël aw xeer dugal ko ci bët bi benn nit rek boo moytuwul da ngay da ngay mooy lu mat ay junni doomi aadama maanaam ñëpp xeer ya dugg ci seen bët loolu moom ku ne xam ne ne yàlla ko def wa ma ramayta id ramayta walakin allaha rama malaaka yi fekkee nañ xeex bi jullit ñi biñ xëyee wàcc ànd ak force bi gën a rëy boo xam ne ci la doomu aadama yi sukkandiku ngir mën a def jaloore joo xam ne danga naan lii doomu aadama mooy ngëm ngëm dara attunu ko ci kaw suuf ngëm yàlla daara attunu ko saxaaba yi bi sallallahu alayhi wasallam yoroon nañ ci ngëm loo xam ne lu ñu song danañ ko daaneel ñu song jullit ñi malaaka yi di leen jàppale suñ boroom yàlla mi wax ci alquran wa laqad nasarakum allahu bi badrin wa antum allahu jooju ku ne xam ne ne mooy faa'il ji kum xam ne ne maf'ul saxaaba yi yàlla leen dimbale badar jamono booba wa antum adilla adilla afilatun la booba dangeen ngeen a nekk ñoo xam ne ñu néew doole ngeen istastaxiisuuna rabbakum fastajaaba lakum anni mumiddukum bi alfi min almalaikati murdifin ba ngeen di xetlikoo seen borom yàlla wuyu leen tëbb leen junni ci ay malaaka ñu tof taloo di ñëw dafa wax junni bu njëkk bi rek waaye am na beneen junni bu ca toppaat am na beneen junni bu ca toppaat id yuuxii rabbuka ila al malaikati anni maakum ba yàlla wax yoo malaaka yi na leen maa ngi ànd ak yéen na ngeen ma defal ci xeex bi lii ma leen sant mooy fu ngeen fekk ab jullit na ngeen dëgëral ngëmam loolu moom yéen laa ko sant la ja des nag mooy sànni am tiit ci xolub ku weddi yàlla loola maa ko féetewoo sa ulqi fi qulubi alladina kafaru ruba maanaam sànni am tiit maanaam jekki-jekki rek tiit te doo xam lu la tiitloo tiit mu la bàyyi ko ci suñu borom subhaanahu wa taala ndax ab noon boo dee xeex ak moom féeg mi ngi amu fitam sa jafe-jafe moom jeexagut waaye bu fekkee da ngay koo xam daal tiit ko gañe ko daanaka moo tax liñ mënta def ci noonu muy tiit loola leneen yàlla jëlal engagement ne danaa ko def ci noon yi lan moo tax mu di ko def ci noonu yi nag wax na ko mooy dañoo weddi yàlla. feneen ci suratu ali imran dana sanulqi fi qulubi alladina kafaru ruba bima ashraku billah baa sabab yi la mooy sabab boobu moo tax suñu borom di sànni ci ñoom am tiit waaye ki gëm yàlla moom yàlla suñu borom la muy sànni ci xolam sakina lay doon xoolal ci suratu ah, ah, inna fatahna fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alayhim fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alayhim yàlla bam xamee la ca xoli sahaaba ya mu xam ne ngëm ngëm la ca la daal di wàcce li nga xam ne moo di ak sakina yooyu ay mbir la yoo xam ne yàlla rek moo xam lu mu doon ay sakina ay message yàlla la yoo xam ne ku yàlla wàcc ci moom da nga koy yëg da nga yëg ne wàcce nañ ko fi mu toll nii teme moom yaa ngi ko yor waaye nag nu mu la duggee moom doo ko mën a xam yéefar ba itam ka daal di ka noonu la yow tëdde bu ko ko sunu borom subhanahu sànni imaam muslim nee na sa ci saxiixam ab jullit day dox topp jekki-jekki rek dégg caw cawu xiir xiir ko ne cer caw mu dégg ab ab faris ku war a ciw fas naan aqdima xayzuum avancé la yow xayzuum nee na bu xoolee ki muy xeexal gis mu tëdd ci kanamam fekk booba bakkan ba dagg nañ ko xar kanam ba kadalik yaram yëpp maase wert malaaka yi ñi nga xam ne dañ leen doon euh, def liñ leen di def ku ci daanu ku nekk saw yaram dafay mel ne dafa wert moo tax benn lansaar yi dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man damaa am ku ma topp ab yéefar ma xàcc ba nar koo dóor rek mu mel ne dégg ak ak karawaasu xiir gu ci bopp bi ma gis ko mu tëdd sama kanam yaram wi wert sallallahu alayhi wasallam ne ko sadaqta ma min madadi samaa'i salisa ne ko wax nga dëgg de waaye loolu mi ngi jóge ci renforce bi jóge ci asamaani ñetteel bi maanaam mala sallallahu alayhi wasallam itam ay biram ku la li ko xamal ne maanaam malaaka moom ci ci ci ci asamaani ña ñetteel fa la jóge moo tax daana ko wax ne ne euh, inni la ara ma la taraw na wa inni la aalamu ma la taalamoon maa ngi xam lu ngeen xamul de maa ngi gis lu ngeen di gisut wallahi bu ngeen xamoon li ma xam da ngeen ree lu néew te da jooy lu bari daane maa ngi dégg it loo xam ne leen daane asamaan si boo fa demee atati samaa wa xuqalaha an taita mu ne asamaan sépp mi ngi maase di wonk daane yell nag yell na ci asamaan nag mu wonk ndax ma fiha mawdiu arbaati aqdaam arbaati illa illa wa fiha malakun sajidun aw rakia mu ne yon sallallahu alayhi wa nee na asamaan mënoo faa natt lii mënoo faa am espace bu toll ci ñeenti baaraam dafa xat malaakaa fa taxaw di sujjóot wala malaa nga fa ma nga fa taxaw di di rukool borom bi subhanahu wa taala benn waay ci lansaar yi ku gàtt ab taxawaay daa indi abbas ñu jàpp abbas mu yeew ko waaye ñu gàtt abbas daal ne yaa rasulallah inna hada wallahi ma asara kii jàpp ma de ngattaan mii jàpp ma ki ma jàpp daa leel te rafet la te ca aw fas la war ansaari bi daal taxaw ne yonte maa ko jàpp de day wax rek mu mii maa ko jàpp salaa salaam ne ko uskut noppil faqad ayyadaka allahu taala bi malakin karim suñu borom daf laa dëgërale dëgërale am malaaka te yow yëgoo maanaam Abbas li mu gis ne moo ko jàpp ba tax mu wax ko yow moom pour yow da ngaa jàpp ne fi mu toll nii yow yaa ko jàpp waaye ki la ki ki jàpp Abbas moom ndax ngattaan mu toll no maa euh, ngi jégalu de maanaam gàttaay bi daal ni mu gàtte ak Abbas ni mu amee jëmmu daal jëmmu jooju su ko manee jàpp ba di ko fodoog di ko indi sallallahu alayhi ne am na ko ca jàpp kon xeex boobu moo wax dëgg yàlla xeex la boo xam ne gannaaw malaaka yaa ngi ci ñu ngi ci biir di liggéey kooku ca bokk itam jàpp naa ne dana yomb ci ñëw lool alimaam Buxaari nee na yonente bi sallallahu alayhi wa dane jibril ngi nii ŋàbbu ak laabam jibril dafa ñëwoon wa fihimu id waradu jibrilu lu ci nopp ah wa fihimu id waradu jibrilu xaliluhul mumajjadu jibrilu nema sanadu fawqa jawadin shay shay zami cheyu zami mooy naaru góor wu gudd jibril kon bokk na ci ñi nga xam ne ñëwoon nañ ñi ci bokk ñi ci ëpp solo suñ Tuubaa da leen a tënk foofu noonu fihimul muhaqqiq Seydina Aboubacar tudd na ko foofu Seydina Omar tudd na ko foofu Seydina Ali kadalika tudd na ko foofu même Seydina Ousmane Seydina Ousmane moom si jëm boppam ñëwut waaye nag daanaka ñëw na ndax sallallahu alayhi wasallam sédd na ko yàlla teral na waa badar ci yenn ci ay karaamaat maanaam badar ay karaama yu bëree bëri feeñ na fa am na ay karaama yoo xam ne feeñ na ci badar karaama yooyu bokk na ci ukaashatum nu mihsan badar daf doon xeex ak jëseem di xeex di xeex ba jëse ci damm mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yoratuma jëse da sama jëse damm na yonent bi yëkkati wenn yet rek jox ko ne ko demal xeex rek nekk fa di sikki sàkk daa jël daa jël jeesi ji rek daajal jël yat rek dem naka moo ko yëkkati mu doon jees ji gudd a gudd jeesi ju dëgër a dëgër jeesi ju weex tàll joo xam ne keroog def na ca jaloore joo xam ne kenn ko fàtt même ci yeneen xeex yi nga xam ne topp ci ginnaaw Badar affaire boobu soppikuwul maanaam yat woo ko salaatam joxoon tam soppli ko jeesi dafa mujj nekk jeesi benn yoon rek benn yoon loolu nag moom ci kàttanu yàlla moom du ca dara inna dalika ala yasiir mi ngi mel ne yonent yàlla Isaa rek ba ko sa ne sànnil yat wi mu sànni ko mu doon jaan aw yat ak jaan Muusa Muusa fa alqaha fa ida hiya fa ida hiya mbetteel ida fujaiya la ci mbetteel rek fa ida hiya hayatun tasaa mu ne ko xudha jëlaat ko sa nuiduha sirataha al ula danaa ko delloowaat mu doon ànd aw yetaat nga xam ne yow yaa ngi yor aw yet soo sànnee mu doon jaan soo noppee mu doon doon doonaat yet nga téewaat loolu ci ron kàttanu yàlla du doon dara iblis xeex bi ba muy door dafa yoroon melokaanu Suraaqa ibnu xaptal xabtal yéefar yi bañ dugg ci bañ demee nag ba mu gisal boppam ne yëf yi ci boppam am na lu ci dugg ay malaakaa ngi ci biir di xeex ca la nag jël ay bagaasam daw dafa daw keroog dafa daw ba sànni boppam ci géej xatta alqaa bi nafsihi fil bahr ne inni axaafullah inni araa maa laa tarawna inni axaafullah li wax du dëgg mu ne lu njëkk li dëgg la moom inni araa maa laa tarawna moom dëgg la maa ngi gis lu ngeen gisut maa ngi gis lu ngeen gisut tayit maa ngi ragal yàlla a axaafullah bu ragaloon yàlla génn na ci li nekk bu yàgg xeex bi abdurahman ibnu awf imam muslim imam buxaari nettali nañ abdurahman ibnu awf nee na damaa nekk ci sàppe ci biir badar ma geesu sama côté ndijoor sama côté càmmooñ ma gis ñaari xale yoo xam ne fendeeguñ kenn ki ñëw ba déy ma ne ma yaa ammu arini aba jahlin damaa bëgg nga woon ma abu jahlit ma ne ko yab naa xëy fa maa tas naaw bi yow abu jahlin loo ko manal mu ne uxbirtu annahu yasubu rasulallah dañ maa wax ne ma day ŋàññi yonente bi salaa sallam walladi nafsi bi yadihi la in raaytuhu laa yufaariqu sawaadi sawaadahu xatta yamuuta al maa ngi waat ci yàlla mi nga xam ne sama ruuj ci loxoom la nekk ma ko gisee moom abu jahlin moom mu ñu ne ma day ŋàññi yonente bi salaa sallam sama bët balaa teqalikoog bëtam ku gën a njaxlaf ci ñun ñaar dana dee ne ne ma yéemu ci wax jooju lool wenn waxambaane wu ndaw moo ma ko wax nee na keneen wokkaat ma ci sama beneen côté bi ci des waxama sanil axar ne ma Abu Jahl xamewoo ko fii ci biir mbooloo mi ne ko yow loo ko manal mu ne ma bu ma ko gisee rek dana jëm suuf de nee ma daal seen Abu Jahl muy wëndeelu ci biir doomu aadama yi ma ne leen alaa gis ngeen kële kële di bàkku ñu ne ma xaa ma ne leen la saaxibukum alladi tasalaani an kee ngeen di laaj ma nga ne le nee ñu mel ne ak fet njëkkante ko ñoom ñaar nee na amul may jekk-jekk gis ñu dóorandoo ko ñoom ñaar seen ñaari gees yi bañ ko dóorandoo ñoom daa mel ne xeex bi loolu dong nga leen fi indi woon dañoo ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa saasa yonente bi ne leen ayyukuma qatala yéen ñaar kan moo ko ci rey kenn ku ne man la maa ko rey ana qataltu sallallahu alayhi wa sallam ne leen seen ñaari gees yi fompagun ngeen ko fompagun ngeen seen ñaari gees yi ñu ne ñu ne ko déedéet fompaguñ ko de ku mën a àttele moom sallallahu alayhi wa sallam mu mu ne indi leen ma jees yi ñu indil ko jees yi mu xool ko jees yu ne taq deret mu ne mu ne kilaakumaa qatala yéen ñaar ñëpp ko rey loo xam ne ku nekk daa bëgg a féetewoo jaloore ja mu fexe ba ñoom ñëpp ñu bokk jaloore ja loolu am solo la ñoo xam ne ku nekk daa bëgg a féetewoo jaloore ja nga fexe ba ñoom ñëpp nga boole leen jaloore ja yéen sallallahu alayhi wasallam def na ko euh, bi waa Màkka di xëccoo ci kan moo war a delloo xajarul aswad kenn ku ne bëgg a jël jaloore yi maa ko delloo mu fexe ba jël am mbalaan lal ko jël doj bi tegal ko ci boppam kenn ku ne mu ne la jàppal ci benn jat fexe ba jaloore ji ñoom ñëpp ñu bokk yonent bi nee na yéen ñaar ñëpp ko rey yonent bi daal di jël koo kee ñu reyoon muy abu jahlin salab ba mu jox ko muaaz ibnu amr ibnu al jamuh ñaar ñooñu ay doomam lañ kenn ki Muaad ibn Amr ibn al-Jamuh la kenn ki Muaad ibn Afra maanaam Muaad Amr ibn al-Jamuh mooy mag moomu nga xam ne bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee Madina euh, yàlla dogal na daanaka ci ay mag yonte bi mu ñëwee Madina daanaka li mu fa fekk ci ay mag bëriwul lool dafa am benn xeex bu jiitu ñëwug sallallahu alayhi wasallam Madina muy ñuy tudde xar bu Bi'aas xeex boobu mag ñu bëree bëri ci lañ faatoo Aïcha daf daan wax ne sala suñ borom ku yéeme la dafa mel ne mag ñooñu yàlla da leen a teel a waajal ñu teel a faatu ndax bu fekkoon ne sallallahu alayhi wasallam bi muy ñëw Madina fekk na leen fa ak niñ dëgëre woon ci ak kiifar kon lam doon jàllale lu bëri dana gàllankoor Amru ibnul Jamuh moom daa fekk daa bokk ci ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu dugg ci lislaam jëmm la woon jooxaane da daan soox bu daan dox xasootu Uhud la faatoo dafa ñëw ci sallallahu alayhi wasallam ne ko damaa bëgg dem ci xeex bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow am nga ay doom yoo xam ne mën nañ la cee wuutu surtout yow nga xam ne da ngaa néew doole tuuti yow suñu borom moo la wàcce xeex bi nee na laysa alal ama xaraj wala alal araji xaraj te yow wax dëgg yàlla ci araj yi nga bokk mu ne ko ah, sama tànk bii may sox day li wér te wóor danaa ko sox biir àjjana moom te lo te daal di daal di daal di julli ñaar rakkaam ne suñu borom maa ngi lay ñaan xeex bii ma jëm bu ma wàññeekuwaat ñëwaat ma diina ci boppam laay bañ bu ma ñëwaat bala nga maa jiitu ci yàlla man ma jiitu la ja yàlla xeex boobu keroog ba ñuy tuxal néew yi di leen indi Madina te booba yent bi sallallahu alayhi wasallam ko ci woon ndigal am néewam dañoo ñëw fekk mu tëdd ñu bëgg koo yëkkati néew bi dëgëra dëgëra dëgëra kenn mënta yëkkati néew bi ci lañ soog a fàttali ko li waxoon ne yàlla bu ma delluwaat Madina nekk suñu borom moo ko téye foofu kon ñooñu positif lañ doon doxee positif bu ànd ak ngëm yàlla ànd ak xam-xam Muaaz ibnul Jamuux doomi Amru ibnul Jamuux nee na dama dégg ci biir nit ñi ñu naan abu jahlin mi ngi ci alxarija alxarija mooy ay garab yoo xam ne dañoo ràbbaloo ci ay banqaas ñu naan abu jahlin nekk na ci place boo xam ne kenn mënta agsi ci moom nee na baa déggee loolee ma def abu jahlin mu daan sama yitte ndax abu jahlin suñu borom daf ko bëgg a toroxal moo tax ci loxo yu bëree bëree la jaar door a faatu nee na bi ma ñëwee ba mu wóor ma ne kii mooy abu jahlin ma dóor ko dóor boo xam ne nee na yeel bi ci boppam dafa naaw comme boo jëloon ak tàpparka di ko dóor ci ab tàndaram ni tàndarama bi di naawe nee na bi may siggi nii rek ci la ma doomam caw jeesi doomi abu jahal dañuy wax ikrima daal di may caw jeesi fii sama loxo bi summeeku nga xam ne wenn wenn der moo ko téye ma jël sama jeesi ji ma yoroon ma delloo ko ci beneen loxo bi ci des loxo bu dagg moom ba des aw der moom du ma gàllankoor ci xeex moom ma jël sama loxo jël jees yi ci beneen bi continuer di xeex di ko diri di laxaj laxajeeg moom ci biir bi mu demee ba nga xam ne xeex baa ngi jeex loxo bi xaw maa sonal ma sëgg ndànk teg loxo bi ci suuf jël saa tànk teg ci buddi ko jàll duma ma gàllankoor mukk ci àddina bàyyi fa loxo ba loxo boobu bi mu paree. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ko indi ko mu wër ko ba gis ko mu ne ko teg ko fi mu nekkoon mu teg ko fi mu newoon mu ne ca taf loxo ba delluwaat fa mu newoon sallallahu alayhi wa sallam